asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 27 novembre 2020 ñëw ak asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 30 novembre 2020 ñëw ak ci yëglikaay suñu lamb la xëy tey doore mu mel ni ki yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey fa mu xëy fasul ci xëtam mu njëkk mooy ki nga xam ne mooy le roi des arènes Modou mu nga xam ne daal fi mu nii yëglikaay bi Ama Baldé Modou wax fa lu leer xamal Ama Baldé ne ko man du ma ñeexum ñebem kenn te buñ ca demee da nga xam ne man ak yow magante amu fa xanaa kay jiitoonte donga fi nekk waaye ko bëreel ma pat ku ne xam ne yéen ñaar waru ngeen a sax magante waaye buñ ca duggee ba génn ca ca lay xam bu baax a baax la ma koy wax mel ni ki nag wax jooju Malick Thiandoum xëy na tey ñëw ci wala mbir yooyu jàpp na ne daal combat Ama ak Modou moom ay étincelle maanaam ay tàkk-tàkk bu bëggee dégg-dégg des na ko fa gis ndax combat la boo xam ne nii maanaam xat ga mu xat na lool ñoom ñaar kenn du ci may sa morom dara yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey séq ak moom waxtaan moom Malick Thiandoum mu wax fa lu mel ni ki noonu mel ni ki tamit ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne moom di sunu làmb Bécaye Mbaye tamit mu nga ñëw di wax ci la nga xam ne ni daal mooy couronne roi des arènes ba lam ca xam ne nag ne na nekk ni daal CNG bi ci seen wàllu bopp ñoom ñoo ko war a sax leeral maanaam féetale ko fenn ñu xam couronne ba naka lay demee ak ku ko jëlati lan nga cay amee ak loo cay jëlee loolu mooy waxi ka nga xam ne moo di Bécaye Mbaye ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi ki nga xam ne nii nag moom moo di Jax moom des promoteur nekk ci lambi simple jeeg lambi juróomi at yi nga xam ne ni daal def na ko ci li simple Jackson ne na daal def na ca lu toll ci presque cent millions maanaam quatre-vingt-quinze millions daal dugal na ko ci boole nee tamit ñu boole ko caa boole loolu lépp amul solo waaye daal jàpp na ne moom loolu def na ko ci te itam la mu jàpp daal ne moom mooy leader ba yëglikaay bi di suñu làmb ba tey fa la Jackson waxee lu mel ni ki noonu jàpp na ne tamit SOM Iba Mar Diop ba ñu tëj ak arène nationale ba ñu leen jox jàpp ne loolu ay problème dong la ndax nen li simple bi moom Iba Mar la gën a yaatoo ndax arène nationale ba na mu nekke ak fa mu nekke ci wàllu boppam daal mooy loo xam ne nii ndax nañu ko bëggee dana ni arrangé la nga xam ne nii moom moo di làmb ja rawatina wàlli simple ba ñoom ña nga xam ne tamit ñoo cay def xaalis ba tey ñëw ci licence yi nga xam ne wàññi nañ ko jag daal la mu gis ne na wàññi ay licence ak yokk ko ne na loolu moom seddalu ko tàngalu ko maanaam daal yëgu ca cafka wala gu mettit wala bànneex moom daal loola moom loolu lu mu la ba tey yemu ne képp koo xam ne yow da ngaa jóge fenn promoteur nga ñëw da ngay tëgg làmb nee bu ñu la jaay licence un million sax war nga ko mën a jënd bu fekkente ne yow yaa choisir nekk promoteur ba tey moom Jax mu ngay xëy di xam ne daal nee kii di président Macky Sall nag moom ci boppam daal démarrage association bi moom rek fi nekk nii moo ci mën a wax daal loo xam ne nii lu leer naññ naññ la Jax daal tey waxtaan wu yaatu seq na ko ña nga xam ne nii ñoom ñoo di yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb yëglikaay bi ba tey ñëw na ci waa Ariel ñoom tamit daal seen i doléance daal yu baree bari yoo xam xam ne nii ñoom ñoo di waa CNG ba daal tegal nañ leen ko ci seen taabal daal ñoom ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di waa Ariès beneen mbër boo xam ne ni moom trois combats la def trois défaites muy Boy Séréer moom nag daal mu ngay wax ne que daal la mu nar daal mooy loola nga xam ne arrivé na ko daal nu muy seetee seete seet ba xam ne daal dina ko lijjanti maanaam tegaat la nga xam ne moo di carrière am ci kaw yoon maanaam daal jóge ca defar ya dem ca ay ndam ba tey bu ñu dellusee fa nga xam ne nii moo ci yëglikaay bi rek wala bu ñu fa desee fa nga xam ne nag mooy ca tuuse bu ñu fa demee conférence de presse ba nga xam ne moom la Modou Lo amaloon fa nga xam ne mooy place souvenir moom yëglikaay bi ne ki nga xam ne ni daal moo di mbër mi wala bokk ki fi nekkoon mbër di Balla Diouf daal maanaam wàllum sécurité ba moom moo ko yore woon géré ko teg teg ko ci aw yoon yëglekaay bi ba tey mu nga xëy ñëw diñu wax loola ka mu bokk la na écrit tamit mu nekkoon tête film muy Tafa moom itam daal dafa mel ni léegi kon bokk na ca organisation waa Ligue Nicolas Enco yëglekaay bi ñëw na tey wax ñu lu mel ni ki noonu mel ni ki moom itam gis nañ ko ca tuuse ba tey promoteur tamit daa mel ni ñoog CNG seqoon nañu ay waxtaan mel ni ki promoteur nag ba tey yëglekaay baa ñoo xam ne daal ah ci covid tëgg far corona ba ñëw yàq la mel ni ki noonu manque de démb nag daje na ak ña nga xam ne nii ñoom ñooy waa lutte simple ba fa nga xam ne mooy ca arène Adrien Senghor record a xëy ñëw dinu ko wax mel ni ki nag maanaam daal lépp loo xam ne ay jafe la daa mel ni lu jëm ci wàllum sport boobu wala boog lambi simple ja waxtaane nañ ko fa mel ni ki daal manga ñëwoon na fa dem ak ay gaam ak ñam ko seqal waaye tamit yëglikaay bi nata na fa ay absent yoo xam ne daal gisul ñu leen fa ku mel ni ki Doudou Faye ma nga xam ne nii ku ne xam na ko ci lutte simple bi ak ka nga xam ne nii moom mooy Ousmane Ndour ak Abda Ndong daa mel ni kon ay absent la ñu woon ca bés booba waaye daal li jara tamit yàgg maar te mu am dem record ñëw na ci tey ci xëtam mu njëkk muy ki nga xam ne ku ne xam na ko wala boog àddina bi yëpp xam nañ ko rawatina réew mi nu ne muy Pape Bouba Diop mi nga xam ne démb nag moo génn àddina ci réew ma nga xam ne moom moo de France mel ni ki nag ñi mu seqaloon équipe nationale ba daal ñu nga xëy di ko rendre hommage muy ñoom ba ci Omar a yaa ngay wax la nga xam ne ni daal moom nga xam ci moom ci koo baaxoon na loon fonkoon la muy def waaye itam nekkoon nis ku nit koo xam ne ku bëri woon kersa la ke jiite réew mi nag moom daal mu ngi koy delloo njukkal di président Macky Sall moom Pape Bouba Diop mooma nga xam ne nag daa mel ni wax na wax ja boom moom mooy xamoon mu nekkoon ci défense Sénégal bi moom ne na Sénégal moom maanaam daal héros fonkuñu ko déeréet xanaa kay bàyyi ba nga dee waaye na boo fi defee jaloore daal wala nga defaan réew mi fu ne la lijjanti duñu xool ci loo ne te defe naa nag maar loolu boo ca nekkoo di ko défendre di ko taxawu ñu yilif mbir ma war nañ lay delloo njukkal di la sagal di la sagoo bés boo dee nag ñu xam ne kon dee ñëw na ndax dee moom du ñàkk kullu nafsin saayiqatin mawtin la sunu borom bi wax du dañ ku dund da nga dee lu tooy da nga wow yal na yàlla yërëm ko jégal ko mook bépp doomu aadama rawatina bépp jullit bu mu fa fekk ak bu ko fekk barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziaram mbokk internet yi tey nag di ngeen ko xamee ne ñu ngi ñuy suivre à travers le monde rek di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen waaw di wax ne que daal namoon nañ leen waaye ñu leen di bëgg yéen ñëpp internet yi duñu du mën a ñàkk tey nag fi ñuy njëkkee yàgg maar fenn la rek maanaam balaa ñuy sori dañuy jaale sénégalais yi rawatina monde sportif bi ki nga xam ne moo fi bàyyeekoo démb si dimanche yi di Pape Bouba Diop nekkoon ko nga xam ne nii xamoon nañ ko ci équipe nationale ci ati 2002 yi ba yàlla def dañ ni mu bàyyi équipe nationale wala ni ñu ko gëjoon convoqué mu nekkoon koo xam ne wax dëgg yàlla ñun en tant que sénégalais boo xam ne équipe nationale bu 2002 révélé nañu coupe d' afrique révélé nañu coupe du monde mais malheureusement ñu indiwuñ ko mais nag terewul honoré nañ Sénégal parce que defe naa finalu Sénégal 2002 bi ak Mali ak astaghfirullah ak ka nga xam ne moom mooy Cameroun ca Mali defe naa ne kan boobu kenn dootu ko fàtte te Pape Bouba Diop mi newoon na ci milieu terrain ba mook ñoom Salif Diaw ñoom Khalil Fadiga daan fa wane jëfi fulla jëfi fayda ak jëfi ku bëgg sa am réew ndax yàgg maar damay wax ne nga ne ci club tubaab mu yor la sa lépp sécuriser la ci côté bu mu mën a doon te terewul bu bàyyi ko fa jot da nga ko fay bàyyi ñëw défendre sa couleur dëkk defe na taxawee noonu ko def moo ko kon lu ñu mën a def leen dul ko yàlla yërëm ko xare ko aljana defe naa ne wax dëgg yàlla lii équipe nationale 2002 bi mu fi nekkee lu ne xëy na daan nga dégg des fois ay détails mais moom mosoo ko ci dégg mosoo ko ci dégg à tout daal ci terrain bi nga koy gis mu football footballam après bu jeexee mën na nga ko sax bañ a bi yàlla def ni mu nekkee Lens jóge Lens xam nga dem ba Angleterre def fa lu saison yu yàgg yàgg yàgg ba jóge fa mujj yaakaar naa ne Grèce fa la mujj jeexale li nga xam ne mooy carrière waaw fii la ko doore jaar na fi jaraaf dem fi Suisse muy koo xam ne daal vraiment exemple la royukaay la kon nag du ñu mën a def lu jaale ko képp kuy sportif nag mais suñu jaal dañ koy toog ci loxoom rek ñëpp kuy sportif di nga ci jot waaye tamit duñ fàtte ka nga xam ne moom moo nekkoon jiitu réew mi jamono jooju muy Abdoulaye Wade mu nekkoon moment yoo xam ne maar defe naa yàgg ngaa dawee eh, ay xel yu méttee métti wuti waaw teeru ji yi man am na ci bés boo xam ne nii moos defe naa mooy loolu parce que macha allah lañ doon def la ah ñu koy ñaanal rek yàlla jégal ko te xare ko aljana ñi nga xam ne ñoo fi des tamit ñu bàyyi leen xel parce que Pape Malick wax na lu am solo maar héros dañ koy fonk dañ koy fonk kon encore une fois sénégalais yi nit ki du du du du du d jóge rek ñu doog nekk di wax di naanana nit ki bu jàngale ko sax ci école yi parce que yooyu exemple lay doon ay royukaay lay doon su ko defee nit ñi mën ci roy loolu dafay am solo trop trop trop te ñi nga xam ne dañu défendre couleur réew mi te bañ koy défendre xëy na dañu demoon parce que xam nañ fi lañ bokk ñun ñu ne ci yenn jafe-jafe bi nga xam ne moom mooy bu basket bi ak qualification bi nga xam ne am nañ ko bëri ki démb ca Kigali Rwanda di ci nuyu suma xarit Youssou Ndoye ak équipe lañ ko gagné di féliciter seen coach su muy nga xam ne moom moo di euh, Boniface Ndong waaye tamit di encourager équipe bi nga xam ne daa ñàkk dem final bi muy xale yi nga xam ne ñoo doon final ak ñàkk ko par tiro bi déméritu ngeen 2-2 tiro bi nag moom cartel rek maar di leen encourager di féliciter waa Gambie di wax ne ñoom tamit comme ñoom war a teew ca CAN booba nañ fa teewal Afrique de l'Ouest bi rek ci teewaay bu am am solo loolu yëpp sport ñëwaat na ci Modou Lo mu nga xam ne nii ah mental beeg yooyu daal macha allah fa mel daal yooyu yëpp téye na taxaw na boo xam ne tamit diggante ak Ama Baldé nar na métti waaw parce que nag Modou waxal na ko boppam kere na du ñeexum ñebbe te itam buñ ca yeggee xam loolu mel ni ki nag loolu boo ko gisee mooy combat boobu moo nar a neex rek. et puis tamit di félicité waat promoteur bi Luc Nicolaï di ko ñaanal yàlla mu réussir ko di ci profité nuyu képp kuy promoteur làmb la képp kuy sénégalais mais làmb la joo xam ne daal xam naa ne ku ko gën a bëgg sa morom nga ne kii la ñoom ñaari mbir yëpp ko bëgg parce que lamb dafay am défi bu ci ne seen lamb daa am défi bu ci ne ndax Modou Lo la mu def Pikine roi des arènes biir Pikine la ko jëlee bu rek Ama Baldé mbapat daan ko yaa ngi dégg Ama Baldé itam bu muy dugg parcelle ci lutte avec frappe ba tey daanoogul daan ay liet naaw Modou Lo daan sax ay magi Modou Lo muy Papa Sow moom la mujjee daan kon defe naa combat bu bëri na lu ci laxasu kon yaakaar naa da yàlla nañu ko fekkee tal ko euh, dinañ gis combat bu neex Malick Thiandoum tamit jàpp na ne tàkk-tàkk am effectivement du du ci luy baax la du am roq bu sedd waxuma la sax tàkk-tàkk waaye tàkk ci kaw tàkk ci suuf ngay gis tàkk bi fépp nar a tàng mais yàlla na jeex ci jàmm rek que le meilleur gagne loolu la ñuy ñaan xam nga ba tey jàk fekk ne daal ci wàllum yokkum licence ak baab ñene moom loolu euh, defu ko lu set defu ko lu tànga parce que daa jàpp ne rek waaw mooy loolu bi ci mooy képp ku jàpp ne ne képp kuy euh, problème gisu ci problème tamit jàpp na ne ah tey même bu ñàkk bu ko ñàkkee tamit du nekk loo xam ne lu baax la ci lit simple defe naa loolu tamit amateurs yi moom d'accord nañ ci waaye xëy na nag euh, Iba moom nekk na endroit boo xam ne ci làmb daf daan dundal làmb rawatina lit simple Iba Mar Diop bu fees lit simple yàgg maar doo bëgg mu jeex nga fa ne ba 4 heures du matin doo ko yëg parce que bi ak salaire bi ak ni leen ñuy jege ñi ak animation bi loolu beneen affaire la mais nag comme am nañu arène nationale ñu xool rek nuñ koy gérer waaw bu ñu demee record tamit manque de gis nañ ko démb ak waa lit simple bi waxtaan na ñoom parce léegi moom lañ ko dénk ah muy loo xam ne daal li ñu ñaan mooy Sénégal ciy jëlee ndam réew mi ci jëlee ndam doomi Sénégal yi ciy jëlee ndam buñ ca gisee lu ñu la war a critiquer tamit dinañ la critiquer ci critique boo xam ne bu objectif lay doon mais du nekk critique bu nga xam ne c'est personnel loo xam ne du doon acharnement daal parce man moom boobu rek laay bañ mais di wax ne que daal tey loolu moo fi ñëwoon di ñaanal ñëpp jàmm di siyaar ñëpp di balu ñëpp ak di wax ne képp koo xam ne ñu ngi lay jégalu parce matul yaa dégg yàlla bu ko lépp duñ soxla ko defee mere kenn kenn du tooñ kenn mais nag yàlla deful loolu moom moo ko bëggee nii kon ñu ko ciy sant di ñaan yàlla rek mu muccal mu musal ñu muccal ñu te itam yokkal ñu ay xéewal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàgg maar di la bëgg di la ñaanal jàmm di la wax na yow moom aw ma sa fay yàllaa ñu boole du micro du caméra mais yàllaa ñu boole ndax li tax ma koy wax mooy sa jikko parce que nit jikko lañ koy nawee parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla tagg taggewu ko ndey ak bàyyi jikko la ko tagge te jikko nag bu baaxee rek jàpp ne lépp doomu aadama bi baax na maa ngi lay bëgg bu baax baax di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ci kër gi di la ñaanal jàmm di la balwaax di wax ne yàlla na jàmm yàgg Sénégal